geste bi nga xamné ne que né président bi def nako suite à ça depuis demb am nañu information bi mais montant bi ñaatalal la ñu amul woon ñu koy rafetlu ndax té nam du xaalis bi mais geste bi la mom moy que né yëg na suñu sunu yuuxu donc ñëw na parce que bo président de la république quand même bu len faté né que ne moom mooy protecteur des arts et protecteur des artistes donc lolu mu def non cëram la bu mu war euh, donc génné na 2 milliards 500 millions teg ko ci table bi pour jéem artiste ñu ko seddo ci biir fin d'année bi pour au moins pas compenser mais au moins venir en aide aux artistes c'est vrai que les acteurs yi bari nañu montant bi de mais ku la may doo ko la mais nous, au niveau de la CAM la coalition des acteurs de la musique et ses alliés on a dit que ne Bobu, boobu bëgguñu jox association. Nous jox ko Sodavo keneen ak Nous, ministère de la culture nous ñu un comité pour ni que ni acteurs yi ñu nga mais ils vont s'occuper du contrôle pour que les bu liggéey bi pare ñu publier liste ba xam ku nekk nañ ci xam transparence parce que biñ fi avons ba woon distribution wu nous ba fa njëkkoon ci 3 milliards il y avait eu beaucoup de problèmes avons une association qui a fait ni que ni euh, partage équitable mais finalement euh, inéquitable def amna na artistes yoo xam que ni ñi montant d'ailleurs on a demandé à ce que ñu sank man ak euh, euh, coordonnateur euh, Daniel bi ñu ministre bi recevoir man ak mom wax nañu ne que ne xaalis bobu tamit bëggon nañu xam naka la teudé naka la naka ñu def audit bi pour xam fan la fan fan la ci nit ñi fété donc aujourd'hui dal ñu rafetlu action bi remercier ministre bi comme ni ma ko waxee remercier également le ministre Youssou Ndour qui a fait aussi def jox na ci jéego remercier képp ko xam ne ne que ne de près ou de loin. même bu fekkee ne gisuñu la dox nga ci ay jéego pour que affaire bi mu arrangé wu.